Cheikh Niass di doomu sénégalais boobu nga xam ne ab émigré la woon moom nag dafa ñibbisi woon waaye dañ ko jàppoon ci police après ñu def ko ci kaso bi mu faatuwee foofu nag Seneweb di ñu xamal nag ne famille Cheikh Niass nanguwuñ ñu jot ci kooram loolu nag famille wi naqari na leen lool ba ñu génnee sax ñoom benn texte di ci wax daal seen naqar gi nga xam ne ni ànd nañ ci ñoom membre famille bi ndax mënuñu gis seen doom ji nga xam ne ni daal dafa faatu loolu nag mi ngi fës lool ci Seneweb ñu wax ci ay nit yu faatu waaye ci yoon yi nag la ñu faatoo maanaam ci accident loolu Actu Sen moo ñu ko xamal di xamle ne juróomi doomi aadama yi nga xam ne ni dañoo faatu ci benn accident bu am ci wetu village u Njabel loolu mu ngi nekk nag ci wetu Gossas ginnaaw bi nga xamee ne kon accident bi tey jile ci alxames jile am ci wàllu koom-koom ak Presse Afrique du ñu xamal ne ñu système financier bu Sénégal daal di nañ ko daal xamale ne bu bu raisonnable la bu dëgër la euh, loolu nag ni euh, ngi am ginnaaw cérémonie de présentation rapport euh, première notation ci wàllu monnaie locale loolu mu ngi amoon ci teewaayu ministre bi ñu dénk finance ak budget presse Afrique moo ñu xamal lu ni mel ci bitim réew relation yi nga xam ne moo dox diggante France ak Mali tàng na lool la Macron nag waxam ji nag mel ni sax moom lu ci gën a xamba taal bi RFI point fr di ñu jotali wax ji nee na président bu France moom jàpp naa ne accusation yi premier ministre bu Mali def ci tribune bu Nations Unies dafa nekk loo xam ne nii daal teguwul fenn ndax moom Choguel mayga dafa xamle woon ne waa France dañu nar a bàyyi Mali wax ji nag kii di Emmanuel Macron nee na choqué na ko lool.